ay ca bàkk ba jib yéen kay groupe des médias nee na nii wii nii noo gi de mi ngi mel ni mbàccub gerte ci arène politique bi laa la wax nii bi la yoon du Macky Sall de déedéet ndaamal ka ci boppa moo waxul tey jii ndax mi ngi ci Macky ba léegi am war na ko gannaaw nii avec nii contre président Macky Sall tribune yéen kay nii idi fu mu nekk nii mi ngi tëggalu am jom mi ngi mën a manœuvrer loo xam ne ni amul fenn moo téye volant bi de waaw waaw yéen kay bi ne Sall ngaari moytul ndaama moytul ndaamal kajoor laa la wax nii lu muy tëgg bés bu di nga ko bëgg a fecc mu lay të kaddu de yéen a kaay bay wax ba tey de nee na un grand adversaire silencieux de Macky neexul ba neex waaye ndekete yoo président Macky Sall adversaire du opposition bi adversaire mi ngi togg lu am jom ci suuf te adversaire du kenn ku du ndaamal Kajoor yéen i bi yemu ca nee diggante Idrissa Seck ak Macky Sall mii de bie ngeen xam ne tas bi dañu ko toxal rek waaye dafay ñëw de tôt ndax la boole ñëpp xam nañu dëkk ko woon ñaar dañuy boole samp seen dënd am déet l'indépendant yéene kaay ne boo leen bëggee dégg-dégg de président bu réew mi nii def na virage yu cent quatre-vingts laa lay wax tribune yéene nekk te muy dëgg man maa ko seede maa fekkale police bëgg yéene bi nee na ñii di laam-laame na ñaar ñi ci boppam dañoo xuloo wala déggootuñu jàppaleen na président Macky dalal na jigéen waa parti réew mi laaj ma kan moo jiite woon délégation ba ndaamal kajoor idi mu yëkkati laa la wax 25 millions teg ca président Macky Sall nek ko déedéet ma dolli teg ci ay billets d'avion xanaa ñi ñoo man ani ñan ñoo xuloo lay laaj le quotidien yene kay nek ay door la rek li ay door la ndax c'est 2024 idi mi ngi ci ray bi de il lance une campagne de collecte de fonds xanaa kon samp na ndëndëm da koo waxul rek le témoin yene kay nek ki wax kay modi Mamour Cissé waaw waaw wan na ginnaaw président Macky Sall mom jiital PSD jant bi Mamour Cissé mi de nee neexul ba neex waye man ndax président Macky Sall mi bokkati ñu gisin ci arène politique bi Né ko dem na te dotuma dellu si tribune yéene kaay ne kon waa ànd naw la demu ñu dee waaye nag ñu ngay fàttali Macky Sall ne ko sa démb Fatick la fii lañ la wax fii nga mbapatee sa base politique Fatick la kon nag gestulaa Fatick waa ànd naw la nee na ñu Fatick de fu mu nekk nii dafa mel dafa taw leen naw le ndax sonn nañu damm nañu taay nañu pénurie doo ñàkkum ndox nii la ñu koy dundee au quotidien xale yaa ngay tambaambalu dëkkee Jakarta ak tontolaan waa ànd naw la lii la waa Fatick di a l'artisanat nee nak nawle wo oh, xana du ban fatik ngay wax du fatik bi de fatik bi nga xam ndaw ñi dañoo takku taxaw andax président Macky Sall Bamba Sarr nee na ko yéen waa ànd nawle seet leen yalla ci li ngeen di wax ndax fi de fu mu nekk ni président Macky Sall lañu wax Sall ngaari lam toro rek lañuy top Bamba Sarr nee kon Matar Ba jaajëf si ni ñu dalalee fi ci fatik wa COJER a ngi fi wa maire ngi fi moole mouva bi taxaw président Macky Sall mi ngi fi Bamba Sarr ne li ma bëgg modi ndaw ñi nañu takku taxaw te mbooloo nañu ngir dem bindu ji révision exceptionnelle yu liste électorale yi kenn duñu ci dañoo takku taxaw voté ji la ñuy def ndax gunge président Macky Sall lii la Bamba Sarr wax ci l'exclusif nee na Fatick mere ñu ne déedéet tey la ñu gën a mën a gunge président Macky Sall te daanaka ñëpp bind nañu jamono joojee ñii mer ba futt l'exclusif moo di waa Pastef sa Kër Massar nee nañu de am na ñaar ñu nga xam ne ni dañoo daw ca ba ñu ami tànk dañoo démissionné de laaj ma ñana mooy premier adjoint bu maire ba ak kan kii jiite jigéen di Pastef nee na daw nañu ba ñu ami tànk jàmm la ñu woote doxuñu ci benn fitna lii ñuy gis nii daanaka dem nañ ba gisatuñu seen bopp moo tax nee na ñu bi tànnaat jotee kee dañu ñoo dem tànnaat président Macky Sall moom la ñuy gunge 2024 lii la ñaari soxna yi wax société civile bi li ñu wax ci Sud Quotidien de moo di élection yi tëddee ñaaxaanaay ñooñi mu njaay siisé yi nee nañu takk nañu taxaw soo seen dàll fës kee ñaab ñaab ñaab dox ci li nga xam ne ni day tax ñu am élection yi tëddee ñaaxaanaay duñ bàyyi dara nag ay élection yu transparente et sereine lii la woot bés bi la journée kii woote kay te bindab téere docteur pyjama yu nga xam ne nii pyjama tëdd nelaw la jaaxaan jaax nee na dama dem ba mu jëkk dama jéppi sama bopp laa la wax ba ma gisee ñu commandé yi la pyjama yow waa santé commandé lay pyjama nga dem jënd pyjama yu nga xam ne chemise de nuit la tëdd nelaw kii dafa mel ni njagawayi ko docteur Bousso ne nee na lii rek la man laa jéppee sama bopp dama dem ba jéemu ma xam sax ani kan moo def commande bi ak kan moo dem jëndi loolee ay incohérence kese moo am ci lii la docteur bu ma sëkk la def une grosse annonce nee na man damay arrêté lamb laa la wax déet waay déet waay the king nee na damay arrêté